jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax na nag ñoo ngi ci émission mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su ma nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci fans yi waaye su ma nee jàmmaarloo mbokk yi xel mi dem ci mbër yi ba tax nag tey dem feddala ñaari ndaanaan yoo xamante ni nii ndaanaan lañ ci wàllu làmb ndax su ma nee Daouda Chandis xel yi dem ci ñi nga xamante ni mooy waa jàmm gën Fass Mbao Sicap Mbao su ma nee Agogo nag xel yi dem ci waa Parcelles waaye mbokk yi tey dem feddala ñaar ñoo xamante ni nii Euh, seen combat moto bëggoon na ko seen combat ñoom ñaar bëggoon nañ ko ba doon nañ ko dox ba xawoon na des tuuti sax waaye euh, kii di Agogo dafa mujj woon jël benn avance boo xam te ni mooy Baye Mandiaye loolu moo tee combat bi taxaw fi mu toll nag am na ñoo xam te ba ñu ba tey sax ñoom ñaar bëgg nañ combat bi looloo waral ma dalal leen fi bëgg waxtaan ak ñoom ci seen carrière bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom seen diggante ñoom ñaar xanaa dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi daaw nuyu naa la. yooyu si aaroon la góor waar gaayaan na ko waar mbaa lépp jaam rek. sant bu naa ñëpp ñoo fekk si plateau bi di siyaar ñëpp di ko siyaar mhm. sax fi ngeen noonu la demee xanaa ma bàyyi agogo mu nuyoon gannaaw moom euh, seet bu bees la seet moom dañ koy daal di naan seetoo seet mbaa wàcc gannaaw moom da doon tàkk di ko ñaanal yàlla boole leen boole seen i wërsëg musal leen ci cat ak làmmiñ ak balaa ah, bàyyi leen daal ñoom ñaar ñoo xam ñu bëgg yàlla defal leen ko seet bu bees bu nuyu naa la. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim naa ma sant yàlla jëli si bi sant samay ñaari waajur di nuyu waa Grand Médine gi ma bàyyeekoo nuyu waa Parcelles maa ngi nuyu yéen ñi ma fi fekk ñëpp. di la nuyu yow Ouzin. di nuyu bu baax Daouda Sandi di ñi ma fekk ñëpp. di nuyu ñëpp di leen wax nag yàggoon nañ saa bëgg toog fii. ñu yàgg see waxtaan. mais wax dëgg yàlla léeg jot bi du ko maye. xëy na mm. tey la ko yàlla dogal. maa ngi ñaan yàlla nag yàlla musal ma si accident làmmiñ ba ma bañ fee wax lenn luñ may xeebee. wala sax luñ may yeddee yàlla barkeel sama làmmiñ ba mu mucc feeg jàmm wax fi loo xamante ne nii su ma fi jógee dara duma topp si kàttanu yàlla jërë ngeen jëf. Mm-hmm. gis ngeen jërë ngeen jëf mais mais mais mais. takk yi naka la demee woon parce que gis naa euh, keroog bi ngay bi ngay bi ngay jël soxna gis naa fa waa Parcelles gis naa fa waa waaye gis naa fa mbër yu bari ñëw nañ keroog ci bésub xew bi sa diggante yow ak ñoom lan la parce que dama ci gis ñoo xamante nii say adversaire lañ gis naa fi ki nga xamante ni mooy Gackou 2 gis naa fa ñoom Alioune Seye ma ma gis ne daal làmb léegi euh, dafay boole parce que ku ci mel ni Alioune Seye moo nga war a daje ki nga xamante ni mooy Jos te Jos passé la dëkk mais kaw bi nga jël soxna dafa déplacé wu géejuwaay ba passé ñoom Gackou ñeneen ak ñeneen ñu ci bàyyi ñëw nañu sa diggante ak ñoom lan la. waaw ñoom ñoo baax rek ñoom ñoo baax wax dëgg yàlla woon ma mbaax won ma yëfi nit won ma yëfi gor. ma àndi seeg ñoom ñoom ñoo ma woon loolu ma àndi ñoom mu rafet ba ma am bis ñu war teew comme ni nga ko waxee ñoo xamante ne nii tey làmb saa mun na leen boole te buñ leen boole woon tamit ñu bëri. Mm-hmm. bu amee ñu ñëw ñu daje te wax dëgg yàlla loolu moo war a am ndax ñun ñi ñëpp tey ñun ñooy mayante xaalis. Mm-hmm. kon ñu ñooy mayante xaalis tamit ñu nekk ay noon adversaire nag bu jotee mun naa nekk adversaire maanaam esprit yi dépassé fi nga xamante ne ni sax foofu la tolloon. nga xam ne tey yow mbër mi sa moroomu mbër boo ko rombee nii dangay ñàngal wala expliqué yooyu jaru ko wax dëgg yàlla muy ay nit ñu baax keroog ñu teew fa teewaay goo xamante ne ni daf maa mujj bett sax. muy lu rafet lool muy lu rëy lool ci man wax dëgg yàlla loo xamante ne ni sax xalaatuma woon ne sax. dina demee noonu mu rëy si man lool wax dëgg yàlla ñooñu ji nañ ma teraanga goo xamante ni nii wax dëgg yàlla lu rafet la et man tamit yàkkamti naa sax pour fayantoo ko ak ñoom ndax lu rafet la. yàlla ngeen ko gaaw a fayantoo. waaw mbir mi takk moom bokkul ci seen programme. waaw ah bokk na si de. waaw koo jox dañuy gis paa bu ne ma nga wax mu ne la nga xaar ci kanam. non boo xoolee léegi. yooyu mu ngi wàññeeku parce que boo xoolee. léegi yéen a ngi commencé comprendre quoi. non gars yu bëri tey ñoo ngi sa làmb ji di di di di compétir di yor ay soxna di am seen i doom bari na fi de laay la ak fee bari mais xam rek san dépend ndax tamit situation buy téye ñëpp mooy téye mbëri léeg nga gis mbër moo xamante ni dina ko bëgg sax mais boo xoolee situation famille walla situation génn dëkkuwaay da koy du ko permettre sax mu mu mu mu mun a yor soxna. loolu dafay am quoi. am na ñoo xamante nag wax dëgg yàlla tamit mooy loolu. jot na ci ñoom de. waaw ah yàgg na. ay ah. Seyde yi <laughs> ah. ay ay Seyde Aliou Seyde ndax nga ñeme koo wax. ay Dame Sène <laughs> ay Mori Cargo. boo jóg ñooñu situation yooyu jàpp leen de. jàpp leen de da ko war a xoolaat. gis ngeen situation yooyu jàpp leen waaye mbokk yi ma fàttali leen ñii ma fi dalal tey. su ma ñëwee ci ki nga xamante ni mooy Daouda Sandwich moom def na 10 combats 9 victoires benn défaite su ma ñëwee ci ki nga xamante ni mooy Agogo moom moo ngi ci 15 combats moo ci 15 combats am na 9 victoires 6 défaites waaye mbokk yi 5 défaites ah 5 défaites benn match gis ngeen noonu la demee ba ba tax na sax boo xoolee euh, victoire yi xaw nañu neexoo ndax ki bu defee 9 9 victoire ki def 9 victoire defe naa ne ñoom ñaar seen comba jaar na peut-être bu bu bu bu bu raw di am ci wala boog ci combat yi ba ci Agogo lay ëppee. mais Daouda Sandwich naka ngay defee neuf victoire boobaak léegi kenn dégguloo ci ci ci ci yenn mbër yi ñuy wax yenn VIP wala boog ñuy topp ci ñoom boobaak léegi kenn déggul da nga nekk rek mbër ñu gis rek mbër yi en général ñu ci bari euh, gars di dañ leen bëgg wala boog dañuy dañuy teel a yegg benn palier bi lu tax boobaak léegi kenn déggul ci benn niveau bi. waaw loolu lépp si làmb la rek parce que làmb daa baaxoo loo xamante ne gars kuñ mënta daan duñ sawar si maanaam lu nooy la ñuy wër. man moom doo ñëwee moom wax dëgg fa yàlla moom nekkul luy nooy man bañ a ko ma koy wax nee naa leen carrément la ma waxoon laay waxaat. mbër muy sóora mbër muy sóoraale reliquat dooma daan. ku sóoraale. reliquat dooma daan. luy loolu. muy xàll de CNG dooma daan. booy nag mën nañ dajeeg yow di wax ni caméra yi daleen ñuy wax ni mais promoteur du leen seeti dañuy teggi loolu teg leneen. mais man maanaam amul amul mbër muy takk ngemb si làmb bi ñu indi sa avance tablatoire muy ak noo mën a mel noo mën a tol borom baan bi moo ma yéem à part moom kenn yéem même du ma wëreen du ma ko jëlee ñëw nga doon ma dee sax jël ko. mais dañoo gis chaque jour booy booy da ngay wane sañ-sañ gëm-gëm am fit lan la. loolu moo fi nekk si sama deret la nekk nekkul làmb kese la. nekkul làmb kese la de. am na ñoo xamante ne mais mais mais naka nga ñëw ba fii tamit xam nga. waaw calme nii man man man de sandis bi ma daan gis ak bi ma gis nii tey du benn man. wala wala dañ laa yeb bi ngay ñëw. non barki Mouhamed déggante ma ak sa nit ba may yàq. billaay walaay. maanaam. teel mi ko sam benn gain dama koy wax dama yow serpent noir nga chaque jour ak ni ngay mel. loolu day am mais tey du ñëwoon tey fekkee mu demee neneen it dañuy indi leneen. waaw ah, bëgg mu demee nee nag parce que jàmmaaloo moom ku ko xam-xam ne euh, baaxoo lii man yii bu ngeen koy def sax damay nelaw nag. non jarul nelaw lépp mu ngi biir waxtaan bi rek. Ah. waaw loo leen bëgg. mais mais sa combat bu mujj. sa combat bu mujj euh, hmm. kan nga mujjee bëre sax. Loosoodu bu yaraax Loosoodu euh, bu mm-hmm. yaraax. moom moo kankan daan na ko fan yi moom nag xam naa ni mbokk mbokk sa waay la waaye war naa war naa xoolaat boppam dafa war bu baax a baax ndax mm-hmm. euh, làmb nag moom moo baaxoo noonu tey nga daanu suba nga daan mais Loosoodu dañ lay dañ lay ñaanal rek nga gën a entraîné waat gën a dellusiwaat parce que da nga bokk ci làmb. ndax ñi nga départ ndolo ñu ci bàyyi ñenn ñi bàyyi nañ ñenn ñi ñoo benn niveau bi mais ñu lay ñaana rek nga dellusiwaat bu baax a baax mais ñu gis nga bëgg Loosoodu daan ko. daan ko ak manière am ci ndam mais avant yaag loo jodu su ma juumul sa diggante yow ak Gogo lañ doon dox. waaw maa moom lañ doon dox dañ ko doon dox maa moom man jot naa si diggante ak ay nit ba conclure la moom si la jël. mu kaw bi mu kaw bi Ma Ndiaye sax moo njëkk suñu làmb mais man bàyyi ma xel si baay Ma Ndiaye man lu ma wax nit laa bàyyi xel lu ma déggante ak nit lu ma nit wax ak li ma ko wax loolu laa jàpp mais moom nee na combat Ma Ndiaye lañ njëkkoon wax ka sama combat ak mu mujj dem bëri jëg ba ama njaay man ma dem jëli bu somoon bëri ak moom. mais mais nga bëri woon ak loo suudu ak nga bëri woon ak ci gën a lool. ku ñëwoon it baax na man aw ma tiiru gaay si laam. léegi bëri nga ak loo suudu daan nga ko. waaw ah. agogo na daan na bu ñu andi woon avance sama ñii ñii noo koy def. dégg nga lu ma la wax xanaa xam koo xamante ne maa ko raw palmarès mais ku ma tollool palmarès wala koo xamante ne def nga lu méngoog lu ma def dañuy bëre man amul benn mbër bi taxaw ma lay daw wala ma lay sóoraale fëgal la mooy sox ma. fëgal li ko xam-xam na du ragal moom. lu mu yor benn. maa ngi diisam toog si. chaque guddi damay lentu. lentu mooy ñi déggul. maanaam di la dànkaafu lu ñëwagul. xam na ma bu baax a baax. man làmb kese taxul ma raakaani. bu dul làmb sax sóoru ma ko. doo tooy permanence bu budul làmb taxul nga kaaju Agogo euh, bi ñuy dox sa combat yow ak Daouda Sandwich. Mhm. Euh, xamoon nga ne yaa ngi ci contrat la moon la moo taxoon nga sori woon ci waxtaan bi ba noppi yaa ngi woon ci contrat dem ba ci biir euh, nangu dem ba jéeg ki nga xamante ni mooy Baye Mandiaye. njaay ba dox sama combat ak moom. boobu nekk guma ci contrat moom moom Daouda Sandwich bu moom. boobu nekk guma ci contrat. dañoo nekkoon di waxtaan. du noonu da nga koy dañoo nekkoon di dañoo nekkoon di waxtaan ak Fallou Ndiaye. si combat si combat sama combat ak Baye Ma Ndiaye mu doon waxtaan ak sama ménagère. Mhm. sa ménagère am wéré di tuuti xam xawoon feebar. ne nañ ko may bu tanee après dina tënk ak promoteur bi si diggante googu lama ma prince woo. di ma wax waxu kii ma ne ko waa baax na léegi danga may may tuuti rek après ma waxtaan ne ma ba xam di nga mën a bëreek moom ma ne ko waaw mais danga may may tuuti ma tënk sam ménagère ginnaaw ba xëy na moom nu mu ko déggee nee naa ko dinaa ba xam bëgg nga bëreek moom ma ne ko waaw dinaa bëreek moom mais may ñu tënk xam nga loolu jotewul dara ak nangu naa. mais bañuloo tamit de. waaw d'accord mais combat bi nanguwuma wax ma ne. xam nga dama nekk di waxtaan kon mënuma joxe sama kàddu ne pare naa pour bëre loolu boo ko waxee rek mooy pare nga pour bëre joxe nga sa kàddu daf ma laaj ba xam adversaire bi ñu la proposé ba xam mën nga bëreek moom te comme ni mu ko waxee léegi mbër la bokk na si làmb kenn amul droit bañ ci benn sa benn morom boo ma amuloon combat mun naa bëreek moom. Mm-hmm. ma ne ko d'accord. léegi nag moom ci jour boobu noonu. mbër bi amul sax jëlati oto léegi dépassé nañ moom ci jour boobu noonu. ci jour moo doom bañ leer jour boobu noonu. ci guddi gi dama xëy benn jour fajar teel sama ménagère moo ma envoyé message liiruma ko mu woo ma mu gis affiche. ki doon monté léegi nii. un million nga doon ko fan nga teg loolu. fan nga teg loolu. fan nga teg loolu laa bëgg a ah, xam ku ma xam la. bi mu suyee sawar te du sawar ñoo dëkk ma ak moom. man affiche laa yégee sax. ma sama kii sama ménager mais nag mais nag xam nga moom li muy wax. may ma tuuti ma daaneel. ma continuer si li ma laaj. waaw ñëwal ñëwal. man dama xëy xëy rek gis affiche. Fallou Ndiaye boobu. mu ngi doon waxtaan ak Maza Fallou Ndiaye aussi woo ma ma ne ko ah man de ñoo si ñoo si ñoo si bokk yem ma woo Matar Matar ne ma noonoo ma expliqué ko nu mu demee mu ne ma noonoo Fallou mi ñu waxaloon moom la ñuy noonu la fa demee woon avancé wuñ si woon. mais moom fan la fan la teg bu ñu la joxoon un million doo ko yóbbaale. mais loolu cëru mbër la. loolu waxi mbër muy waxee mooy fi muy waxee mooy sa sa sa manager xam na ko. te boog su ma su ma su ma déggee wax ji ma bañ. ko sa ménage ñemewu ko. bu ne woon sax man xam naa ko sax. kii maa moom kan moo njëkk a bëre ren. Euh, kan moo njëkk a sax yow wala moom. man maa njëkk a bëre. yaa njëkk a bëre daan. mu bëree moom mii ba combat am bu la yaakoo damay jël xam ne maa njëkk a mbër mu sañoon. yaa njëkk a bëre si lamb ji wutiwaat leneen. mais doo gis lii tey di xaar lu nekk ginnaaw suba. waaw fukki dërëm tey de moo gën a cent franc suba bu ma gisul. yaa ngi xool yéen a maanaam yéen a si boppam ñun ñu bëgg nañ ñu bëri de mais moom moo sawar ci man dañ ko waxtaanee te dee bu leen taafee loolu ñun jaamu gën nañu tëgg di yeewoo lamsaar amuñu lenn du ñu man du ma amee lu may tiit si làmb ma toog si élevage man yaakaaruma làmb kese de sa gaan bu ñëwoon sama ndogo yi laa ko fu ma fekk du ma demee ba am lu may xel ñaar rek ma toog si xari wala ma dem liggéey Modou Modou ji. ñaa ko ma doole. xale bu taw la moo tax nanguwoo jël avance am parce que ni mu waxee nii man damaa gis ne dafa am gëm-gëm te et dala ñeme. dala ñeme parce que nee moom bu amee lu muy xel ñaar wala di ko xalaat mu dem defi ji leneen. waaw ndeysaan ban gëm-gëm la am ne Agogo su ma ko jàppee dama koy daan. dala dala xeeb wala nu mu demee noonu. waa mais loolu mooy mbër loolu mun naa nekk sax mu mun naa gëm ne carrément daf may jàpp dàmm ma génn ma dóor ci suuf loolu moom. comme ni ma la ko waxee am na ci sa droit am na ci sañ-sañ mais man kenn mësuma jox avance am. bu ñu la andiloon avance bi la ma indiwoon avance am tey ak période bi ñu toll surtout. gëm naa doo ko delloo de. waaw non damay bëre dama ko yóbbaale mais kenn mësuma jox avance kii. bu la joxoon avance daal sandis nga jël ko dem. dem lañ ci mës a wax kenn mës si waxaat kenn mësuma jox avance. mais wax nañ la daaw la rek. wuyul moom moo ngi toog. bés. laa mës saa si mës a bu ma taxawee du ma bëriwut ak te mën naa waat si yàlla mën naa taxaw promoteur ma woo ma ne ko diw. du ma toogee deux mois dañ ma koy jox moom du taxawee ku ko woo mu ne daaw la dañuy bëre. waaw loolu da mais ceebu jën du neexul doo sawar. waaw man moom xam naa ne moom aw wax dëgg la aw ma aw ma habitude sax promoteur di ma woo ma koy tànnal waaye promoteur bu ma woo ne ma daaw de ma ne ko waaw ba ñu ma bëree moom ci làmb la bokk. Mhm. dëgg yàlla mais comme ni ma la ko waxee kenn mësumaa jox avance daaw. mais dama gis ne moom dafa sawar ci yow dafa bëgg a bëgg ak yow parce que euh, keroog. non man sax noo déglu ma. sawar du. maanaam daa nekk làmb maa moom day neex. sa diggante yow moom da nga gis ne daal. day neex waaw dafa waaw teel micro bi gis ne daal dafa mën a neex. noonu la demee moom gaynde la du arrière du daw. loolu de am na moom. te day bëre day xam nga man nag ñooñu laa soxla. xam nga xamante dañuy jël benn coup rek ñëw taxaw nga daan leen ñibbi kenn du xam sa capacité yow kii man. du ma bëggee bëgg da bëgg a wane sa bopp ci moom. kii nama ray rey du ma mënee rey du combat taxawee maa ngi moom na ma rey du ma mënee rey du damay jëli leneen mënu maa tëree waaw xam nga làmb moom dafa yàlla dafa dogal ne sax man moom dama bokk si ñu ëpp adversaire si làmb ji comme ni mu ko waxee moom si boppam dafa bokk samay adversaire yàlla xam na loolu man moom bis bi yàlla sàkk xëy na xama rek mooy loolu noonu mais bu ñu làmb boolee rek dinañ bëri yaakaar naa pour làmb boole ñu moom fa promoteur tëgg ko ah promoteur yaa ngi seetaan ndax promoteur bi ko bëggoon defe naa du ma toog fenn nag naan non du ma bëri diw. wala sax diw laa bëgg a bëreel déedéet. du ma toog fenn mais làmb boole na mag bépp mbir boo xamante ne war naa mën a bëri ak moom. làmb boole ma moom bu ñu ma joxee avance am damay jël waaye du ma ne nag carrément kii laay bëreel wala kii laa bëgg a bëreel non ñu bëgg a bëri tey bari nan bu <coughs> ñuy njëkk si waxtaan suñu mbirum émission keneen nga ma fi doon wax. Mm-hmm. boo xoolee sax bokkul woon si si bëgg-bëgg pour mu def palaatoo ak moom boo xoolee man nangu def plateau ak kii sax moo gën a yenu maana waaw nekkoon beneen mbir lañ ma wax du ma toog man télé may fekk sama kër mais du ma fekk télé kii suma grand frère okay. du ma woon Tamba ma fekk mais du nekkoon beneen mbër du ma déplacé si biir xar yi laay toog teg sama ataay jàpp sama ñaamul xaar añ kon sant yàlla ay man. mais mais man Daouda Sandwich <laughs> Daouda dama koo bëgg. Daouda dama koo bëgg parce que Daouda gëm gëm bi mu waxee nii non agogo agogo nag fi mu toll nii Daouda ay réer la la def mais ni muy waxee nii. waaw ah, dëgg gëm gëm lay waxee ak sañ-sañ. ak lay waxee fi ay réer la ko def wallaahi wallaahi ay réer la ko def. ay réer la ko def mais est-ce que xam nga ni ni mu waxee moom bu habitude nii lay nii nii lay jëflanteeg yow xam nga loolu. waaw man moom su boobaa nag. man noonu laa mënee quoi ndax wax dëgg yàlla man façon googu balaa ma ko mun dëgg dëgg dëgg damaa jot avance. Hmm. waaye fii moom yaakaar naa dañuy lu si ëpp sax dañuy waxtaan. daf ñu signature contrat quoi. kenn fayu ko kenn fayu ma xam nga li ma la wax. dëgg wax dëgg yàlla dañuy waxtaan rek. mais signature ma contrat naa yow. leer la wax. Ah, a wax dëgg yàlla képp léegi doo ko soxlaa képp koo xamante ne nii jox na ma avance mbir boo xamante ne war naa mën a bëreeg moom te mu bokku ci damay jël avance. man am naa sañ-sañ taxaw fixé wu benn mbër muy sa jëm te damay bëreeg yow. xanaa ñu fay la nga bañ. ku ma seet jox ma sa avance ma jël. ah <laughs> des fois mën nga taxaw laaj loo xamante ne. yoo xamante ne dañ naan pare naa bi loolu wooyee ñu ne ma fee laaj loo laaj loo xamante ne nii duñ ma ko fay ndax promoteur yi xam nañ li may jar xam nañ fi sama kase tool kon mënuma ma fee laaj loo xamante ne nii yenul maanaa dafay fekk ka kon ma bañ a bëri ak moom mais déggoo li la wax bañ ma joxee avance am ma jël xanaa kay loolu kay. ah promoteur pare pare pare pare pare na yaa xam nga tey keneen ku dul moom sax mën naa bëri moom. Mm-hmm. pourquoi pas moom moom mbëri la. man ni may taxawee waxuma man ba ma ba ma ba ma duggee si làmb laa sawar. man ba ma duggee si làmb laa. taxaw ak mbër ni naan ko laa bëgg a bëri. ba ma duggee si làmb laa sawar ci bëri. kenn puusuma si kenn paasuma si. non dama bëgg nga déglu ma. non mais moom fi muy waxee mooy lan moo wax nga ñi leen moom mu ne fi. te moom mu ne fi. non dama keneen kooku dafay nekk ma am nekk. waaw man moom dama lay wax lu leer. man dama lay wax lu leer. man moom man moom dama man moom dama lay wax lu. doo jëlee oto loo jël du doy dañuy dox. dama booy lamsaari génn rek taxaw. agogo say fukki morom maa man. ah pour foog foog waa lamsaar génn quoi. waaw eh, mais mais man a man a yow su boobaa tamit man a yooyu ne si géej gi de waa lamsaar dañuy xaar de. <laughs> moom maanaam Ama Baldé taxawoon na ne maanaam du déggee ama yi day gën a am doole mais man bu ma dégg dara naa seen booy yi kese. yow daal foog nga yokk fit. soo duggee gannaaw laajal daara waxoon naa la ko dinaa la ko waxati. naa la ko waxaat yow man du ma amee lu tuuti lu may ragal lu ndaw lu ndaw ma baax. waxoon naa la naa la ko waxati bàyyi looy wax naan ay laajal diw laaj ñu la kenn man bu esaat sax ma dem damay firi. Eh, laaj ñu la kenn <laughs> gannaaw laajal waa Grand Yoff ah mais fa la fa la bëñam bi dañee kay preuve la la wax. man ma dëgg léegi lan mooy lan moo dindi bëñam. ah moom moo ko xam dañ koo duma. daandul sax dañ ko duma. ka moo ko duma. ah buñ ko dumal bëñ bi dina dañ. déedéet ka moo ko duma. ah du ko wax du ko wax su wóoroon ni mbër du si jot. laa ma si dellu waaye tur yoo xamante ne fu jaar du ma sax jaar. <laughs> yàlla xam mais télé la te foog a la si jot te foog a xama rek. bugul yenn yi quoi. yàlla xam ne lu lu lu taaw fi des. yow bul tooga di fen di wax bañ la fa la dañee jur boobu métti na lool ci yow. daa doon sax ah, ci caaxaan waay kii war naa toog fi naa sama bañ ñu fa la dañee. kon naan doo sax. <laughs> ah kon kay goreel rek ne sa say duma. ay ko tegee table bi ah, caaxaan. làmb ji du loolu. làmb ji bëri la man fi ngay. fi ngay xëy. man moom. du ma toog par exemple war a am combat jublu si lépp si bëre laa koy jeexale man du ma jublu si promoteur ne ko diw rek déedéet man ñu bëgg bëre man danoo bari moom moom dana du dem si promoteur naan ko diw man aw ma numéro promoteur du la neexee nga xool fii amul numéro koo fii gis barki Cheikhul Khadim man damay toog fi ma toog max ne ma kar ma ne ko lii la mu dégganteeg jàmbaar ji man ma toog croiser la bara man dara ñoruma lu dul liggéey doole amul leneen lu may def comme ay promoteurs yi di waxaale ak ñoom nii. aw ma jot aw ma ma du ma deful lu indiwul nit ñi xamuñu ko xamuñu ma kon du ma la du bëggee ñu bëre dañuy bëggul. tey micro noonu la demee du ko bëggul na jaanee ma jaanee rek lamb la rek. moom yàqaluma ko dara moom yàqaluma dara. mais yéen ñaa nag seen combat dafay parce que diggante Lansar Parcelles temps yi moom trio boobu dafa dox lool lool lool lool lool lool lool sax ndax bu ñu koy yokkee ci Papa Sow Siteu euh, Garga 2 Mama Lamine Daouda 110 Agogo loolu dafay nekk leneen loo xamante ni nii beneen affaire la ndax ndax moom mii ci ci mafia wu ñoom Papa Sow Daouda 110 man su ma bëggee bëri yow bi day taxaw. mais man laa la wax du ma taxawoon man tey. dé ma rek. man ne ma waaw. dama ma yow waaw ne ne ko waaw man <laughs> man du ma taxawee man ne ko dinaa bëre moom promoteur dama kar lii ak lii te match bi du yaaxoo si man. léegi ne ko waaw léegi mais dama bëggee bëre moom dama bëggul bëre moom. waa léegi gëm nga ne. léegi yow gëm nga ne su ma bëggee caméra ay daw. gëm nga ne yow su ma bëggee bëre yow bi taxaw. daw. daaw da atuma daaw da daaw da su ma bëggee bëre yow combat bi taxaw ay go loolu du ma la ko may ngay am tur. man damaa bëgg a bëreeg yow. a bëreeg man kay li ngay wax. amul leneen ay daaw da bëgg a bëreeg man. eh daaw da yaa bëgg a eh, man loolu doo ko dégg. man amul mbër ma bàyyi si làmb ji. daaw maa ngi daa nekk lu jaadu. ñu war a dumante. ñaari atu yàlla ñu taxaw bi xanaa xamoo man bar kii Seexul Xadim santiruma si sam boobu may mais kon dalal. noonu la boo bëggee yow yaa ne boo bëggee bëri yaa boo bëggee bëri man su ma bëgg bëre ak yow du taxaw te muy dëgg. du ma bëggee yow te ko moog zéro ñoo waaw mais kon kay kon kay li ma la laaj. déggoo man sama avance ko tegoon nii nii nii doo ko yóbbu moo lay wan yow sawaroo si man. man li ma la laaj dafa simple. Ah, dama ne léegi waxal ma ko waaw léegi dama la ko ñaan li la ko waaw. mais loolu kes waaw léegi nee na waaw. léegi nee na waaw yegg leen. war leen mooy man dama koy fekk si lu ma. tey. misaal laa koy jox. comme ginnaaw ba mënul mënul mënul comprendre fu may waxee yow boo bëggee bëreeg man te man maa bëreeg yow combat bi du taxaw man su ma bëggee bëreek yow te yow bëggoo bëreeg man combat bi du taxaw man pare naa pour bëreeg yow léegi. man amul mbër bu ma bañ si am. waa léegi pare naa pour bëreeg yow. man bañuma kenn. léegi man pare naa pour bëreeg yow léegi man pare naa pour bëreeg yow ndax xam naa yow li nga am na foo ko teg. déggul ma la man li nga am na foo ko teg léegi pare naa pour bëreeg yow. damaa ragal loolu. nga xam li nga xam nga foo ko teg. non am nga foo ko teg pare naa pour bëreeg yow. moo tax léegi pare naa pour bëreeg yow. na avance bi ñëw. léegi mbokk yi gis ngeen yéen ñi ñuy seetaan wala boog promoteur yi nga xamante ni ñoo ngi ci làmb diggante Daouda Sandwich ak ki nga xamante ni mooy Agogo. gis nga combat bi déglu ma rek combat bi. waaw kii dafa am fu mu ko teg. fëgala di magam. dafa pare sax laa la wax. pour ñu bëri. la ma lay wax lu leer ma li ma lay wax lu leer la ndax nekkul tey lañ mos a fëgal a ŋaaŋ ci làmmiñ nam ne combat xaalis a koy tëgg bu dee xaalis mooy tëgg combat bi sama combat ak booy bi dina taxaw dinaa bëri dinaa bëri moom loolu bu koy wax xanaa comme ni mu ko waxee deux ans la kon ba léegi moo tax ma ne la am na fu mu ko teg léegi daaw da pare naa. boobu ba léegi nangu. déedéet daaw da pare naa. léegi da nga naan ko daaw a pare naa. fëgg la non yoonam a ngi si fëgg la pare naa combat bi sax du combat am combat fëgg la la combat mooy fëgg la moo bëgg booy fëgg la la comme fëgg la a metti barki alxuraanul karim combat fëgg la wóor na Serigne a tey bëgg naa li nga waa léegi waa léegi waa léegi rey leen a yéen nga ko fi wax sànq su ma la su ma la mënee naa la rey xamal naa jàmbaar ji nii. bi jàmbaar ji xaw ma kañ lay doon. mais bis bu jëlee sama avance. barki Cheikhul Khadim du du amul tuuti patience dina la woo ne la du ma yëgoon. waxuma bañ bëre pare de avant ñoo bëre laa lay wax. ki doo xoolee sax xam ne mënul xool daaw la. sax daaw daaw lan lañ la ci diggante bi. wala lan lan barki mu xam ne déwuñu ma dara si moom. micro bi déwuñu ma dara si moom. mais man du ma la xoolee dinaa jàng ni kii war na jàmmaarloog man wala kii war na jàmmaarloog man. man du ma la xoolee kii jegewu ko sax. kii jegewu ko sax. <laughs> daaw de dafa lewet da neex a ñeme. waaw noonu la demee nag damaa jékk damaa jékk si jàpp ñuus. waa demee wul waaw <laughs> du yombee noonu. ba musul am. Oh. mënul nekk man kay làmb damay dem yàlla may ma wala mu ñàkk maa may mais noonu non du loolu. mais nag fan yi dañoo gis nii affaire yi dafay xaw a kii trop dañoo xamul boog ñàkk entraînement la wala ñàkk doole la wala daal kenn comprendre parce que dañuy gis des fois ni ngay daanoo dafa yomb trop. ba pare booy dañ lay jël. non ba daal doo comprendre. musul yomb musuma am komba daanu daanu bu yomb musul am. musul am heure que nag combat moom préparé ko dafa am lu bari lu mun laaj loo xamante ni sax mënuñoo wax lépp ci tele mhm. ndax làmb dafa am leneen te dañoo nekk si làmb am ñu nuy seetaan. Mhm. promoteur di seetaan amateur di seetaan dafa am yu bari yoo xamante ne nii làmb euh, lu mu laaj lépp bu ci amee lenn lu ci manqué rek mun naa ne saa boo demee mun ngaa échec. làmb ju làmb am dafa am làmb yoo xamante ne da nga ko da nga koy ñàkk laata ngaa dem lamb ja am na làmb yoo xamante ne danga koy ñàkk ci géew ndax am lu manqué mhm. waaw comme sama diggante ay ñoom Nokia ak Kéli yooyu mun naa ne sax. sa combat bu mujj bi lan moo la ñàkkloo. sama combat bu mujj bi nag li ma ñàkkloo lépp mënuma ko wax mais bari na détails yoo xamante ne nii. da nga manqué woon bokk na ci liy tax da nga woon doole. wala sëriñ yi da woon xaalis doole. waaw xaalis. parce que dafa am lu tax. combat bi dañ koo tëgg. ñu war ko bëree mois de mois de avril. Mhm. corona bi ñëw. comme moo moo daal bëri fi mu toll nii de. làmb ji buñ ko ibbiwaatee nag ñun kenn joxaatuñu dërëm. waaye à part lay jàppale jotaatuñu xaalis. te sama làmb dafa toll foo xamante ne nii takkali taxul ma génn ci foog ma pare combat da maanaam combat boo xamante ne nii da ngay complet te combat boobu bu ñu jàppaatee dat ñun kenn joxaat joxaatuñu xaalis. promoteurs yi nag ñu dédommagé leen dégg nañ ci loolu mais ñun moom. Ah, kenn dédommagé wu ñu bu leen dédommagé peut-être woon nañ leen sedd seddu ñu leen loolu weesu mais nga jóge ci loolu. Mhm. ñëw duggaat ci lii te nga te te te nga bëgg cee dugal fëgg la ba pare nga ne. da nga non non bokkul. xam nga bu fekkee ne dama combat bi ba ma koy njëkk jël laa la wax. Mm-hmm. boobu pare woon nga voilà ndax boobu noonu fay nañ ma comprendre nga. fay nañ ma ba pare ñu ngi si ñu ngi si ñu ngi si weeru combat bi mais imaginal combat boobu dañoo dañoo ma préparer combat bi ba dem voyage lépp teg loolu nekk zéro. combat bi jógaat nag te ñu nekkoon si pandémie boo xamante ne nii daanaka kenn joobul woon. Mm-hmm. ñu jógaat à part léegi nag ñi lay jàppale rek ngay mën a toog di expliquer mais tey bu fekkee da yor sa avance ba pare gars yi jàppale la nag ci ngay gën kii xam bokkul tak ak tamit koo xamante ne nii xam nga xëy na raq mbër nga wala magi mbër affaire yooyu noonu bokkul léegi làmb nag. voilà léegi làmb nag. loolu la fépp la bàyyi. léegi nag benn affaire dafay am fépp la. benn benn dafay am. làmb mooy demee noonu léeg nga toll guddi yoo xamante ne nii. yëfi day xaw a compliqué guddi yoo xam yëfi day xaw a compliqué mais loolu lépp nag ci làmb la bokk wax dëgg yàlla yooyu moom fàtte naa ko sax. Mm. yàlla xam na loolu. wallaahi ba pare taas la boo xamante ne ni dama ko war dindi jeex na instant bi man maa ngi ci lii dindi loolu. fàtte naa li weesu yàlla xam na loolu. fàtte nga li weesu mais ñu bari dañ ne woon fii nga teg sa tànk du sa place te war nga dellusiwaat ci làmb. sama dellu si làmb nag lu yomb la parce que li nga xamante ne moom la mbër mu ndaw di xeex ba bokk loolu def naa ko ñafe naa ci làmb jaayante naa ci def ci ay takkusaan yu metti sama combat musul yomb musuma baay yàlla xam ne musuma yaafus kon tey man pour ma ñëwaat ci làmb victoire la man victoire laa soxla jeex na ku mënta doon victoire. mais yow. tey bu sa combat moom taxawoon. waaw. Ah. ko mën a boole mu dellu si waat moom làmbam moom ba mu yàqoo si corona laa yàqu woon bañ paree jox dara. mais dama lay dama lay wax si ay adversaire rek jàmbur. Ouzin ah. dafa am dafa am adversaire yoo xamante ne nii bàyyi ma rek loolu ci la bokk dafa am adversaire yoo xamante ne nii pour nga bëri ñoom foog nga am xaalis. waaye dafa am adversaire yoo xamante ne booy bëri ñoom da dem contact gi ñëw daan leen. man boole ma si ñooñu. wallaahi kii si la bokk <laughs> kii si la bokk. wallaahi ah. kii soxla woo ci xaalis boo jëloon avance am. xanaa déggoo li ma la dama la ko dama la damaa waat damaa wax ba pare waat boobu ba léegi nga ma waat. damaa wax ba pare waat. dafa am ñoo xamante ne boo boo leen di jël foog nga am xaalis dafa am ñoo xam boo leen jëlee nag boo yoree xaalis lekk ko demal nga noosi si. dem contact gi duñ la tardel xay moo déglu ko. kii nag ndeke ndeke ree xanaa bu ma la waxee sànq déggoo ma. maanaam man man pour ma ñëwaat ci làmb victoire laa soxla ku mënta doon te kii victoire la. léegi dama waaw teel xanaa déglu li ma la wax ay ah, góor nga muy góor ñi ñëpp di ay góor. Mhm. mu taxaw ne ma man pour mu bëre ak man day dem contact gi ñëw takk ngemb. kii nañ ko tegal deux millions mu saam ko préparé ma man kii du ma paree si moom doo xefee da ngeen dul ko sax déggati. mais daaw nag bàyyi sa nappe yi ngay wax ni moom. ay waxi Saaliw Serigne Saaliw laa gëm Serigne Saaliw laa gëm. sama téléphone a ngi màggal gi ba màggal gi jeex ay fotom rek laay sol ay nataalam aw ma kudul kooku kii du ma ko jàppee ba bako du bëggee dégg-dégg amaana dañ koy fàtte kii. fan nga teg loolu. man xam naa ko mu naan ay dem kontaa ñëw. daa da dafa yeewu ci làmb léegi sax <laughs> laa taxaw yoolo commencement ne leen ba kii day bëree pare sóoraale benn kab ak benn si xaalis bare CNG kon kii damaa mën a déranger kii daa baax. de déggoo li ma la su may bëree ak moom damay xaalis parce que xam nga xaalis dama ko dugal ci lenn ah. te dama siy génn. yàlla ñii nag ngay bëreel nag am xaalis. yow de xamal naa la ñaari baat de kii sama moom. bari leer laa la la su ma doon bëree ak moom nii Ouzin kii su ma moom. combat ak moom du ñu yónnee dama ko pour kii rek kii dama koo maîtrise kii ñi ko daan ñëpp war xel ñaar rek a ko mais kii du jëmmaloon boppam génneel moom day am ndam mais tapet la kii lu muy def lu muy xeeñ ci woowu barki lu leer laa lay wax <laughs> mbokk yi gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo ba tax na damay dala ñaay ba ñu waxtaan xas-xasloo ku ci nekk génne li nag ci yow wax li nga xamante ni moom nga bëgg wala moom nga naa def ma bàyyi leen xanaa ñu wax kàddu yu mujj tàggatoo sant gërëm après ñu ñaanalante ba beneen xagu ko ma bàyyi la nga njëkkee ko. waaw kàddu yu mujj de damay ñaan yàlla rek. bu la yàlla suturaaloon bu ñu yàlla suturaaloon ba combat taxaw sama diggante kii yàlla xam na ne de li ma la waxoon dinaa ko def ci ngay xam ne combat bii nii kii bokkul si mbër yoo xamante ne nii da ngay dem entraîné ji dugg ci àll bi di ut ay gàllaaj ak nangam ak nangam déedéet yàlla xam ne bokku ci. yow man jaraloo ma paase. kii yow Lac Rose gi laay dugg te damay dafaru ci kawam jeex na kii Lac Rose mbaaw gi damay dafaru. damaa jóg pour defaru ci kawam rek xam nga mbër day am tool. kon tey ngaa ñaan promoteur. déggoo li ma la mbër day toll foo xamante. kii barki Serigne Bamba mu laaj xaalis bu takku. mbër day toll foo xamante ne nii. day nekk si ay ay ay ay ay ay ay maanaam mën naa ne wax day nekk si ay. mbër day toll foo xam ne ay guddi yu bët séddagul lañ koy wax. yàqoo sama làmb moom du fekkee promoteur woonoo mu nar a yàqoo si man. barki Cheikhul Khadim yal naa tegle dix combat ñu may dóor may daanu barki Cheikhul Khadim kii lu ñu ma fay ma bëreeg moom maa ngi ginaaw gi kii luñ ma fay te constat bi nee laa koy tegaat man de xam naa si benn affaire kii man fii laa la ko waxee seetaan ko. Ah, képp ku ma xam nag. képp ku ma xam. xam na ne man ma paree dinaa woo ñu ma xam. képp ku ma xam laa la wax. <laughs> képp ku ma xam xam na ne ak góor lépp loo xamante ne nii du ko def du ko wax. lépp lu ma wax man am naa yéene def ko ba keroog yàlla def leneen. kii waa déggoo ma la. yow doo ko li tax ma toog fii tey bañ mujjee dem plateau fële. yow ñaar ma lu ma mën a jàpp dinaa ko bàyyi du ma kii ba pare foo ne fa laa lay fekk dinaa par force. Ouzin. Ouzin vidéo baa ngi fii. Ouzin woon du jugee si Baama Ndiaye si man la jëm si. Ouzin ñaata ñaata yoon nga ma fi woo pour ma toog ay mbër. ñaata yoon laa la nga ma fi woo pour ma toog fi ak ay mbër. parce que woo naa fi moom ñeneen nangu ak ñeneen musuma nangoo ñëw. ak yow mu nangoo ñëw. parce que man dama ah, man xam naa ne man bëgg naa bëreeg man moom ah. man bëgg naa bëreeg moom déggoo li ma a wax combat négoré la. dama nañ daje esaat man du daje esaat man. maay def loo xamante ni force la ñuy bëre. maa ngi moom damay ñëw esaat moom naa ñëw rek gis ko esaat. ala kulli aal man moom damay ñëw esaat ah, dama dama lay wax barki seexu la ma dox lamb ji man. dama lay wax. dama lay wax dam ba mu fi toogee dama la ne man pour ma ñëwaat si làmb victoire. waaw léegi du ma egg rek wàccal. li ma la wax maa maa lay génn kay suuf ngi taxaw bu xam nga yàgg ngaa dégg mbëri naan yàgg ngaa dégg mbëri naan mbër bu nekkee si ay guddi yu bër séddagul dafa war a jël dafa war a jël nooy. kii du ñëw stade moom semaine boobu làmb taxaw xanaa mu yàqoo si moom. tey nga tey nga benn lekk rek gooto rek pour ñu mën a déggante. wax man maay def lu làmb ji taxawee moom na ma déglu rek yow yaa ngi yow boo liiree sam vocal ba pare danga may déglu sawaroo si man de. gis mbër dafa am foo xamante ne boo fa tolloo laa la wax da ngaa war a jël lu nooy pour ñëwaat Daouda Sandwich mii looloo ma dugal ci moom. loolu laa looloo tax ma bëgg dugg ci moom moo tax bëgg moom rëcc ma sama ndam la. lu leer laa la wax nii sama ndam la Daouda Sandwich. yow soo woo si yow xaalis sax comme ni nga ko waxee man nañ ma ñamal lekk après garaawul parce que man victoire bi may indiwaat ci laay laay wër. micro bi. nen num loo soodu. moo si am ay victoire daanu daanu daan mais ñu si ñaar ñu mujj ñëpp maa jox defet man ñaar ñu mujj ñëpp sil bu Sawan maa ko jox defet Gilles beneen gaañ bu ñuul bi nooy faa ñu tudd moom it maa ko jox séeréer lu ñu jëlee ko mbuur andi man mbër yu gën a tëm accident ma am teel gérer leen du ma def problème problème xaw ma ko sax. mais kii du bëggee ñu bëri rek dimanche na mu fekk. ay combat yu ay ay ay combat yu rek laa bëri doxal mais bii baa damaa bëgg a bëri combat bu yomb doxal daay wallaay du bëggee bëri rek. dimanche du ma la xam ne sama carrière yëpp lu tax sax mu métti ay combat yu métti rek laa bëri léegi nag combat bu yomb laa bëgg ndax xam naa ne kii jafewul. bii bokk yàlla xam ne jafewul. déggoo li ma la billaahi kii dama koy jël ba pare dem contact yi sama jàmbur. Moussa Ndoye ba la ba mu ñëwee victoire bi jàllul baax yow doo ñëwee dimanche ma tëgg làmb ji man maa tëgg làmb ji man jege ma rek. am en tout cas daal am naa si booy boo xamante ne nii wax dëgg yàlla. waaw sama waay la sama xarit la incha allah ngemb rek laa jënd ngemb kese dara du ma topp dara du ma man li ma li ma gën a neex ci combat mooy ku ci nekk. daa xeeb moromam ku ci nekk. man daal déggoo li ma la wax yomb kii ne du ma def xaalis. déggoo li ma la wax man daal yàgg nga ma fee woo pour ma toog feeg mbër nangu maa ñëw. li tax ma nangoo ñëw man xam naa ne li may wër. li ma bëgg fii la ne. fii la de yow sax waaw yow yow xam nga loolu yow yow li ma bëgg fii la de. waaw tàggatool tàggatool yoo xamante moom booy buñ la joxee seen avance da war a sant yàlla rek. te xam ne te xam xam ne di dellu si wallaay ndeysaan. yaakaar ma si kenn lamb mën a taxaw grand bi dugal dugal ma xëcc benn mbee dem te ko taal ma téeméer wala ñeent fukk ma yóbbu. yow Agogo barki Cheikhul Khadim maa daan. billaay wallaay mën nga seen mën nii nag. mais yow doo bëggee suñu am taw dimanche fekk may sax. maa def lu muy taxaw billaahi damay damay defaru sa kaw rek. damay defaru sa kaw rek. mbaa danga koy lekk. damay defaru sa damay defaru sa kaw rek. dafa damay defaru sa kaw rek. man mbër bu si nekk mbër bu ne maa ngi koy dégg muy wax si ak góob mbër bu ne. tontu ma si kenn moom laa si tontu. bu mag baag bu ndaw bee si yow. fan yi passé ma gis fi big pato yabaate ba bëgg a téye dee toog plateau des en direct. di wax lu ko neex. yëf yi tamit. bàyyi ba nit ñi a dem. waa léegi def da nga ngeen di affaire yooyu affaire gaay léegi nag moo yooyu amul sens kuy wax ku ne ba xam wax yéen a man li nga wax man waxu làmb laa la wax def ko maanaam maanaam dama lay wax ñoo ñëpp dañoo bokk si ñu bëgg a bëri ak man mais yow ma xam ne yow maa la bëgg a humilier rek yow man kese maa la bëgg a humilier mais à part man kenn soxlawul yow bul man doo a bëre waat yow daanu daanu daan daanu daanu daan nooy bëree léegi damaa bëgg a daan da ngay jéem a teg rek fii nag doo excès du baax de yow laa bëgg a daan moo tax bokk yi gis ngeen ñoo ngi may signaler temps bi jeex ma daan ma see ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak comme ni ma ko waxee woon ci commencement ba bu fekkee ne wax naa fi li ëpp maa ngi tuub di jéggalu matadi la rek wax dëgg yàlla jubluwuma si woon lu ñaaw lépp lu rafet laa si jublu woon li fi jot xew yëpp làmb la waxtaan la suñu biir la xaj waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa Grand Médine bu baax a baax a baax ak waa parcelle gi di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye di wax rek ne wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee léegi rek hmm. te li may wax nii lu ma gëm la ñi ma la limal ñëpp kenn ku si nekk tàllal na ma loxo mais man damaa gëm ne man man xam naa ne man damaa bëgg a defaru te kii méttiwul loo rek loo rekk ma dugal si moom. Ah, méttiwul waaw damay defaru damay defaru rek instant bi moom lu mbëri di def xool mooy pour bokkaat loolu laay def te moom ci ñooñu la bokk. te moom ci ñooñu la bokk ma bàyyi la nga tàggatoo ba beneen. waaw maa ngi ziar yéen ñi ma fekk suma grand frère yeeg suma petit frère yeeg ñëpp waaw di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp kii lu muy wax dama koy baax muy wax rek ñun daa bëgg a defaru mais tànk que làmb la gën a jege ka defaru mbër mi nag maa ngi bu baax a baax a baax sant ma bi def buy dox gërëm ma kenn. mooy suñu taaw suñu papa génn àdduna moom moo fi nekk nee naa la gërëm moo kenn man làmb ku ñëw da see da nga see ñëw dugal sa loxo kese mais daa fekk ma pare démb tey soog a ñëw moom si boppam danaan ma bul wax ma sàmba dara bul wax ma demba dara làmb ji ma mujjee bëri dañ ko puusoon ba may bëriwaat joxuñu ma ñaar dërëm mais yàlla bi ñu tim lépp moo ko géré moom man tamit ma yor samay business di dóor suuf di géré man soxla machine nit keneen ku ñëw dama see fekk mbër nag làmb jàppale lañu wax ñàkkuma ko waaw mais sant nañ Serigne Touba bu baax a baax a baax di gërëm waa Lamsaar bu baax ca ama gën faas mbaaw ñoom la am awma ñeneen awma ñeneen ñoom la am kon yàlla na ma suñu borom bàyyi ak ñoom ba si kanam ak kanam ak kanam luñ bëgg ñoo xam yàlla na suñu borom defal muy jaam ak salaam waaw yow nag amal jàmm bu baax mais bërëb yi nii nekkul de <laughs> gis ngeen nii lay demee ci jàmmaarloo nii lay demee ci jàmmaarloo kontaan naa ci yéen bu baax a baax Adama maa ngi kontaan ci yow bu baax a baax Abu ñëpp gaa yëpp maa ngi leen di siyaat leen bégg bu baax a baax Fatima ah ak yeneen jaaykatu xaalis di leen jox dig daje ba beneen yoon ci jàmmaarloo wasaare làmb jërë ngeen jëf.